Bismillahirrahmanirrahim. Mboki assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yen wa barakaatu ñi nga xamantene ne ñuy ci suñu site bu mag bi le di cns TV wala cns TV santé di leen wax ne tabarakallah fiikum faj seen tawat ñëwaat ak yéen ci secret bo xamantene am solo la waye nak di leen di gëna di leen gëna soñu di leen wax ne euh, gën leen abonné ci kër gi ndax lu am solo lañ fi wane fa tabarakallah ñi nga xamante ne jot nañoo abona yi tamit di leen wax ne tabaarakallaa fiikum yàlla na yàlla fay leen te sàmm leen di wax ne dee leen gën a gëm tey partager ndax lu am solo la fa tabaarakallaa tey nag ñuy leen secret boo xamante ne dafay dox ci li nga xamante ne moom mooy wàllu concours ak examen yi ak bag bi ak BFEM bii di ñëw ndax nit ñee ngi waajal li nga xam moom mooy BFEM yeeg ak bag bi fa tabaarakallaa tey nag ma indi ci secret boo xam dam koy baaxee xale yi élèves yi nga xamante ne dañoo war a def bac te yaakaaruñu ci kenn dañoo jàng at bi yëpp war a war a def bag bi wala BFEM bi wala yeneen ak yeneen mooy wàllu concours di ñaan ngir li ñu jàng ñu daal ci am mucc fa tabarakallah ñu daal di ci am résultat bu jaar yoon fa tabarakallah donc tey nag indi nañ leen secret boo xamante ne incha allah rabbi képp ku ko def boo ko defee ci kàttanu suñu borom yàlla dina ci defal jàmm ak salaam ci kàttanu suñu borom léegi da ngay wut benn bic da ngeen may déglu bu baax a baax ndax li ñuy wax nag incha allah rabbi dama dama bëgg képp koo xamante ne déglu nga ko rek. boo ko jëfandikoo comme comme nuñ ko waxee rek alaakulaali bu neexee yàlla ak yonent bi loolu nga xamante ni yaa ngi koy def muy concours bi wala bag bi eh, di nga ko dagg ci kàttanu suñu boroom incha allahu rabbi bu neexee yàlla ak yonent bi dangay wut benn big boo xam ne kenn mosu cee bind nanga nga fexe na ba ba bu ci kenn bind da dangay bind ixlaas nga ubbi saat bi. boo bindee bu kul wallaahu ahadu ngay bind boo ko bindee da nga ubbi saat bi nga daal di ci def sa tuur ak sa sant ak sa turu yaay ak santam mais nag sa tur sa tur ak sant mooy jiitu après ci digg bi nga daal di ci def sa sa numéro table maanaam numéro bi nga xamante ne moom lañ la jox moom nga ciy def ci digg bi nga doog ciy teg li nga xamante ne mooy sa turu ak sant bi nga daal di koy lem lem bu bu lem bu lem boo xamante ne dina mën a dugg ci biir big bi. ci biir eh, fu raakool big bi nek nga daal ko fay dugal bo noppé nak nga daal di bind ñaari ayatul kursiw manam ñaar ayatul kursiw wu koy defee da ngay bind ayatul kursiw ba mu jeex après nga tek ci li nga moy kul wallaahu ahadu manam ikhlas nga daal di chat bi daal ci def sa tur ak sa sant ak sa turu yaay ak sante bi ak sa numéro table bi. après nga daat ci tegaat beneen ayatul kursi wu kon mu nekk ayatul kursi wu ci kaw ayatul kursi wu ci suuf après ci digg bi mu daal di am ixlaas nga ubbi saat bi boo ko ubbee nga daal di ci sa tur ak sa sant ak sa tur yaay ak sant bi ndax mooy wane ka ne yow la nga daal di bind sa numéro table incha allah rabbi nga daal di koy xooj def ko ci ndox nga sangoo ko benn yoon kese na nga fexe nag ba boo koy sangoo da ngay yéeg ci kaw ban foo mënta nekk na nga yéeg ci kaw dara maanaam na nga kawe lool na nga na nga taxaw ci foo xam ne lu kawe la nga daal di koy sotteekoo sa yaram incha allah rabbi nga daal di gàddu sa big boobu nga daal di koy téye bañ nag kenn utiliser ko ndax bu ko keneen utiliser bu dee dafay def bag bi moom moo koy jël doo ko jël boo ko defee boo demee incha allah rabbi boo ca bindee nga ànd ceeg ngëm ndax ngëm loo gëmut du la may dara fa tabarakallah nga incha allah rabbi boo ca demee ci kàttanu suñu borom yàlla dina la may loolee nga xamante ni yaa ngi koy xëccoo yàlla dina ci may ndam ci kàttanu suñu borom incha allah rabbi donc loolu lañ leen indil tey. maa ngi leen di digal tamit na ngeen ngeen di faral di eh, di wirdee basmala wa ginaaw ba nga defé istighfar del fara di de li nga xamantene moy basmala ndax dina la ubbi waye tam dina la musal ci li nga xam mooy wàllu seytaane ak walu non waye tam dina la may li nga xam mooy wàllu wërsëg fa tabarakallah kep ko xamantene da ngay faral di dem di wuti ji bo def boy booy faral di wir di basmala li ngay wuti ji ding ko am ala kulal insha allah rabbi mbokki assalamu asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakatuh